wax asalaamaaleykum aca dañuy dooree nuyoo bi rek ci euh, Alioune Ndiaye le PDG de Africa 7 ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko kontaane lu bëree bëri waaye itam di bég bu baax a baax ci ki nga xam ne moom moo di Youssou Gueye mbokku téléspectateur Afrique Africa 7 ñu ngi leen di sargalaat bu baax baax te di rafetlu nii ngeen di ànd ak ñun ci suñu ay jotaay ci wàllu musique ñëwati nañoo ak yéen nag ci seen émission bii di ndaanaan réew mi di émission boo xam ne yéen yéen a ko choisiral seen bopp yéen ko bëggal seen bopp jàpp ne samedi bu jot rek dañuy ñëw ànd ak benn artiste danoo dem Pikine danoo delluwaat ci banlieue bi fekk fa koo xam ne doomu Pikine la moom mun naa ni ndaanaan la ci li muy def ndaanaan la ci wàllu muy yëngu waaye tam boo ko gisee di nga xam ne ndaanaan rek lay àndal mbokk téléspectateur Africa 7 tey dañoo dem Pikine indi leen fa ki nga xam ne moom moo di Pagaye Mbaye Pagaye ñu ngi lay nuyu te di sargal bu baax a baax waaw asalaamaaleykum Ibou Ndaanaan maa ngi lay fay mm-hmm. maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan fii ci Africa 7 donc di nuyu sama soppe yi fu ñu mën a nekk rawatina waa Pikine di nuyu waa Kaolack ga nga xam ne falaa laa juddoo di nuyu ñëpp képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi di nuyu suma gars yi nga xam ne donc ñoom laa àndal ñëw fii tey seet si la ci émission bi nga xam ne moom la àdduna bàyyi xel di wax ne am nañ contentement bu baax a baax a baax fas yéene ñëw fii tey jàkkaarloog yow su ñuy soppee bu ko defee nag ñu bégal leen yesaay ayca bokk téléspectateurs yi ko ngeen gis nag moom moo di Pagaye Mbaye moom lañu war a àndal tey ci seen émission bi nga xamante ni moom la fas yéene tey njëkk bëggal ay fansam waaye tam njëkk koo bégal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di téléspectateur Africa 7 après bu ñu paree ñu dellusiwaat waxtaan ak moom nag tuuti ci carrière ak ci jaar-jaaram ci wàllu musique pagaay waaw euh, morceau bi may ubbee nag bon dañuy fàttaliku rek ndax ku nekk xam na ne cumbux maa ko fi defoon donc euh, foog ñu foog ñu indiwaat ko wax nit ñi ne nit koo gis rek daa am foo xam ne fa lay commencer donc ñu ñu ubbee foofu rek bu ko defee mooy loolu mm-hmm. ah

ci seen salon la ma leen yéene ñu nekk di matt seen tuñ rek jàpp seen njàmbur ndax léeg-léeg nga nekk di saan dara mu neex yes doo mën a fecc nga matt seen tuñ jàpp sa njàmbur <laughs> tey xam naa téléspectateur <laughs> loolu laa leen yéene <laughs> daf may daal léeg-léeg ma toog fenn mu neex du ma mën a fecc rek ma matt samay tuñ <laughs> xulli samay bët waaye tubaarkàlla kooku ngeen gis nag moom moo di pagaay mbay te moom la ñu war a àndal ci jotaay bi nga xamante ni moom moo di ndaanaan mi fas yéene waxtaan ak moom lu bëree bëri ci art waaye itam waxtaan moom lu bëree bëri ci musique waaye itam dañ waxtaan ak moom bu baax a baax nga xamante ne ni moom la géwél yi laa ah, muy dox ñaxtu bu réew bi nga xamante ne moom lañ defi woon fële ca stade stade làmb ja ca Pikine waaw <laughs> mais ñu dooree foofu nak nga dundee coronavirus bi waaw d'abord dañuy sant yàlla. Mm-hmm. ndax maanaam euh, am na loo xam ne suñu borom bu ko defee. Mm-hmm. ñun jaam sant rek moo ñu wax dëgg la ndax euh, àdduna noonu la. Mm-hmm. loo gis rek. ñaar la. day neex. walla mu naqari. dëgg ñu ne tey walla suba. ne góor wala jigéen. dëgg la donc da ngay xaar lépp. c'est vrai que ne mbir la boo xam ne ñëw na. xamuñu ko moo tax mu metti ci ñun. dëgg xamuñu ko. Mhm. ñu ngi koy soog a dund. Ah. te yaakaaruñ ne woon bis dina ñëw. Mhm. donc lu mel ni corona bi wàcc fii. Mhm. mais nag man damay wax saa su nekk. dëgg la corona bi arrêté na lu bëri. yàq na lu bëri. mais defar na lu bëri. waaw defar na lu bëri ndax may nañu temps. ndax yaakaar naa ne nit am na ci benn alir booy nekk di daw. doo mën a taxaw. vérifier waat lu baree bari bari. ah man dem man pagaay bay ci biir corona bi toog naa vérifié waat lu bari ci sama liggéey. organiser waat sa bopp. waat gën a defaraat. <laughs> ndax xam nga bu fekkee ne carrière moom. Mhm. Euh, bu fekkee danga yor sa carrière bëgg ko gérer. Mhm. dafay laaj benn moment boo xam ne. il mhm. faut nga toog defaraat lu bari. donc ñëw na nag li ci metti mooy nit ki liggéeyam rek la xam. su ñu demee ba benn moment. Euh, liggéeyatul. donc dina metti ci moom. ndax euh, yàlla dogal na ne ci liggéeyam lay jël mun ci suturu ak ay fameem loolu moo ci xaw a metti mais leneen li ci des mooy ay jaam lañ dañuy nangu euh, ni ko sunu borom bi dogalee donc mm-hmm. maa ngi ci mm-hmm. mais nag taxul ma bàyyeeku mm-hmm. ndax depuis que mu ñëw ba tey euh, maa ngi sama liggéey maa ngi créer maa ngi dem studio waaw maa ngi maa ngi def li nga xam ne daal moom moo ma war xëy na li ci li ci li ci garaaw rek mooy gisatuñu pagaay mu joué dëgg te loolu ñépp noonu lañ koy dundee actuellement. Mm-hmm. Mm-hmm. mais yow nak nga ko dundee en tant que artiste. Mm-hmm. nga nekkoon koo xam ne da nga doon joué mën nañu chaque samedi. ñu la doon gis ñu la doon si jàkkaarloo yi doon la gis si ay ci ci ay événement ñu jékki-jékki rek lépp taxaw yow nak nga ko dundee en tant que artiste. waaw mooy li ma la wax léegi rek. xam nga nit ki lu ko bett da koy man mais nag ñun ay jaam lañ rek dañuy sant. man ni ma ko dundee mooy. mbir mi bi mu ñëwee donc. li nga xam ne moom lañ moom lañ wax ne moom la ñu war a moytu ci feebar bi Euh, ñun ay artistes lañu. Mhm. yàlla dogal na ni am na ñoo xam ne dañ ñuy déglu. Mhm. kon euh, li war rek ba feebar bi ñëwee. Mhm. kenn ku ci nekk. ci côté bi nga war a jàpp. jàpp nga ci. ñun nag suñu baat lañ am. dem nañ ci studio ànd ceeg ay artistes defuñu morceau boo xam ne nag ñun ñoo ko defal suñu bopp. mais biñ ñu woowee xamal nañu ne dinañ bokk ci ay morceau yu bari. que ñu war a wax ak doomu aadama yi wax leen li feebar bi di bañ ak. yooyu yëpp dem nañ ñu def ko ci. donc li ci li ci li ci li ci ëpp solo mooy daal mhm. jàmm ji rek mhm. ndax nit ki mhm. balaa ngaa balaa ngaa tal liggéey tamit dangay am wér am jàmm yaa ngi dégg waaw moo tax bi mu ñëwee rek donc ñu ne yii la ñuy tere yii lay bañ ak yéeg yii su suñu liggéey taxaw metti na mais sant yàlla. mais ñu gisoon leen ngeen nekk ci benn benn compilation mu doon ko wax. Mm-hmm. doon sensibiliser sénégalais à ce que ñu toog seen kër yi. Mm-hmm. takk seen i masques. Mm-hmm. surtout loolu nañu yi ndax bu ñu leen jàppee du baax si yéen. tubaarkaala leen masques yi bu baax ñu gis leen ngeen nekkoon euh, euh, doon wax nit ñi takk leen seen i masques. respecté leen distance yi. Ah, bàyyi leen di joxante loxo yi. ba ci yàgg rek ñu gis leen ngeen ne Macky Sall ñun nag kañ la ñuy tëgg. waaw euh, lu waral loolu. loolu nag bon. man li ma ciy wax rek mooy. Mhm. morceau la boo xam ne. Mhm. dañ ma ci invité. Mhm. mbay si woo ma téléphone. ne ma pagaay dafa am benn morceau bu ñuy def. dama bëgg nga ñëw. ma ñëw bi ma ñëwee donc déglu morceau bi. mu nekk morceau boo xam ne nit ki tamit. c'est vrai que ni sa liggéey nga am. dëgg la euh, bi ñu seetaanee tamit gis nañ commencé nañ ubbi yenn affaires yi. te wax dëgg yàlla artiste bi. bu demul jouer ji. ah day metti ci moom. dëgg la ndax loolu moom mooy liggéeyam. Mhm. donc ñu jël morceau bi. tuddee ko euh, kañ la ñuy tëgg. Mhm. xam nga. Mhm. bi ma gaay wooyee ma ñëw ci morceau bi. bi ma dégloo morceau bi tamit ma gis mu nekk morceau bu nice boo xam ne. bon wax nañ ci sunu doléance. mais tegaamewuñ ci. waxuñu ci lenn loo xam ne nit da koy dégg ne. ñii waruñu wax lii. dëgg la peut-être nag dëgg la liñ ci wax. Euh, ñun la ñu gis ñu wax ko. mais nag dañoo am ay rakk. am ay ñoo xam ne. ginnaaw yàlla ak yonent bi aar rek lañ xam. Mhm. ci aar lañ nekk. donc ñoom xëy na seen baat àggul fenn fii. dëgg la moo tax ñu waxal leen. moo tax ngeen ne Macky kañ la ñuy tëgg. waaw kañ la ñuy tëgg <laughs> waaw. que mu ngi ñëw ñamal tuuti ci la nga ko waaw euh, xam nga morceau bi dafa nekk morceau boo xam ne. Mhm. Mm, bëri na ay ndaanaan yu ci bokk. ndax kenn ku ci nekk sa partition. ku ci nekk seen naar la ci de. waaw xam nga ah, seen naa ci ku ne waroon na sax waroon na sax gën a yaatu. mais instant bi mhm. dafa dafa tombé woon ak. xam naa gars yi morceau bi waroon génn rek ndax am na yeneen artistes yoo xam ne sax waroon nañ ci bokk mhm. mais dafa tombeek morceau bi waroon génn mhm. bon man nag li ma ci wax mhm. dama ne xam nga lu ma namm man préparer dem jeu ji ah, ak a xam nga lu ma namm man ñu làngal ma ba ma sañseeti ndeysaan tëgg baara mbay wu jar ceebu jën bu ma fa gisee samay giir bàkk leen ñu teral ma kañ la ñuy tëgg ayca <laughs> mbokk téléspectateurs yi kooku ngeen gis nag moom moo di Pagaye Mbaye ak ñoom ñoo waxoon Macky Sall ne na askan bi toog seen kër yi ku ci nekk rek na nga na nga raxasu yaay ñoom it ñëwul ba tibkaat na Macky Sall ñun kan la nuy tëgg <laughs> tubaarkàlla kon moom it ñu ngi koy sargal bu baax a baax moom la président Macky Sall mais Pagaye est-ce que mu mën a wax tuuti sa jaar-jaar ci musique waaw euh, man nag sama jaar-jaar nekk na jaar-jaar boo xam ne yombul metti na hmm. ndax li ñu naan loo doonul taalibeem mënoo nekk sëriñam dëgg la man nekk naa xale boo xam ne yàlla suñu borom dafa dogal mu juddoo Kaolack mhm. mais bi ma fa juddoo mhm. dama ñëw fii Dakar mhm. dëkk fu ñu naan Pikine falaa xàmmee falaam màggee falaa fekk lépp ba mën a nekk tey pagaay tey donc jaar fi ma war a jaar nag mooy maanaam tarbiyu naa lii may def nii xëyuma xëy rek nekk ci jaral na ma bi ma gënee nekk xale dama bàyyi woon lépp di dem ci dëkk yi mhm. di tëgg ay simb mhm. ay mbapat mhm. jóge ci loolu commencé topp artistes yi artistes yu bari topp naa leen xam nga doon ànd ak ñoom ñii ànd naa ak ñoom ay voyage fii ñii bitim réew xam nga bari na ay artistes yoo xam ne mën naa leen lim fii ñoo xam ne tey liggéey naa ak ñoom mais nag bi ñu demee ba 2010 yàlla suñu borom dogal Euh, ma def benn morceau bu ñu naan cumbux moom laa ubbee léegi. Mm-hmm. moom laa leen doon fàttaliwaat léegi ndax mm-hmm. bëri na ñoo xam ne sax. Mm-hmm. tey xamuñu ne morceau boobu man maa ko def. dëgg la waaw moo tax ma leen koy fàttaliwaat. 2010 laa njëkk def sama première. parce que man su ma fàttalikoo cumbux ak caxagoon indi na fi waa de. waaw na fi riir ndax bon xam nga aar bi moom mooy li may wax rek. <laughs> aar bi fi mu ne doy na waar doy na waar goo xam ne. dëgg da ngay gis koo xam ne dafay créer benn affaire. muy def buzz. wala mu mu def loo xam ne nit ñëpp koy bëgg. am ku jige fële ne moo ko moom wala mu modifier ko ndax boo seetloo ci mbux bi mu ñëwee mhm. dafa riiral dëkk bi mhm. mais nag caxu gun gars yi dañ ko jël euh, dëpp ko ndax mhm. après ci biir loolu lu nekk ngay dégg da ngay dégg maa moom lii wala maa moom lee mais xëy na ñu ni boobu musique amuñu ci expérience bu bu bu ndax suñu première single la li ñu naan looy looy gën di màgg rek sa xel di gën a màcc xamuñu woon ne boo boo defee lii fi nga ko war a jaarale. ba ku ko laal xam ne ah kii de laal na alalu jàmbur. waaw donc indi woon na riir mais nag sant yàlla. Mhm. nekk xale ñëw def sa première son. Mhm. donc nit ñi jël ko di ko xëccoog yow. Mhm. ba di ko changé. loolu day wane ne rek liggéey nañu ko quoi vraiment. yeah yaa ngi ba 2010 nga génne premier single tuddee ko caxagul. waaw cumbux ma tuddee ko cumbux waaw uh-huh. moom laa njëkk a génne. 2010 après ñu dawalaat tuuti. ma ànd ak Abu ci bolo ci benn mhm. morceau. Mhm. benn morceau mbëggeel. Mhm. après ñu jóge ci loolu ma def euh, benn morceau boo xam ne maa ngi ko def euh, tuddee ko baara mbay bi. ak yoon bi defoon naa benn morceau boo xam ne yoon bi lu tudd. xam nga. Euh, ñu def ba ci biir nag après gars yi gisatuñu pagaay. ma def stand by nag. lu waraloon stand by boobu. waaw li ko waraloon mooy. xam nga musique dafa am ay secret yu ci ne. ndeysaan te maanaam tey yow artiste bi. Mhm. da nga war a yor sa yëfu bopp ba. Mhm. ku dégg sonnerie boobu rek danaan lii ci diw lañ ko xamee. dëgg la waaw instant boobu loolu laa doon jeex ndax. Mhm. boo seetloo euh, man période bi may ñëw. bëri na ay ndaanaan yu fi nekkoon yoo xam ne. dama daan gis toujours rek. ñoom dañoo xaw bokk li ñuy def xëy na wax yi ñoo bokk. ñoo dul bokk xam-xam yi ñoo dul bokk. mais esprit bi benn la doon doon mooy. képp koo gis muy tëgg sawar bu jugee dem euh, bu jugee dem studio war a def morceau day dem uti ku ko wëyal mhm. ut wëykatam di kebatu ci suuf xam nga mooy loolu ma ne mais man il faut ma dem ma ut leneen lu bees mhm. lu bokkul ak li gars di def mhm. looloo indi nag après ma bàyyi toog benn temps bu xaw a diire ku nekk di ma laaj boobu maa ngi doon jeex si laa ne nag bon xaaral ma dugg ci côté nigérien yi xool ñoom lu ñu yor xool eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy indo yi tamit mm-hmm. di leen gëstu dem ci américains yi gëstu leen <laughs> ma ne pourquoi pas musique amul frontière mm-hmm. mais man mën naa jël ñoom li ñu yor mm-hmm. plus que ñun li ñu yor ñu boole ko mu nekk benn mu nekk benn si laa préparé nag def morceau bi nga xam ne bon c'est vrai que ne ñëpp xamoon nañ ma mais morceau boobu moo tax nag àdduna gën ma ràññee muy nama rey muy nama rey muy morceau bi nga xam ne dafa xaw a yëngal jamono ji waaw morceau boobu moom <laughs> euh, yàlla sunu borom moom moo ci def lim ci def xëy na tamit liggéey biñ ci def la mhm. xëy na tamit euh, euh, liñ ci yaakaaroon ndax mhm. suñu borom buur bu baax la. dëgg la donc boo amee yaakaar ci dara. Mhm. def ci li nga ci war a def. Mhm. moom da lay dimbali. donc ñun jël nañ sunu temps lañ doon gëstu tamit. gis nañ ko jaarale nañ ko fi ñu ko war a jaarale. yàlla suñu borom defal ñu ci ndam. dañuy dañuy ñamal tuuti téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi toog seen salon de seetaan émission bii di Ndaanaan Réew ñoom it bu leen neexee rek mënoonoo composé numéro boobu nga xam ne moo nekk ci suuf écran bi dafa mel am na <laughs> maa ngi ziar soxna si naa def allo allo waaw maa ngi lay ziar da ngay bàyyi télé bi rek nga déglu ak sa téléphone waxtaan bi gën a neex dégg nga allo waaye kooku dafa mel ni man ak moom suñu déggante neexu la acca bu la neexee rek mën ngaa euh, composé waat ci numéro boobu nga xam ne moo nekk ci suuf écran bi après bu ko defee ñu euh, euh, xam ne moom moo aussi seen artiste di Pagaye Mbaye moom it mu waxtaan ci deuxième bi nga xam ne moom war a yi waaw xam naa ko defee gars yi enjoy ko waaw ndax tey moom lu yëf yi di gën a dem rek. Ah, lu guddee di gën avancé. waaw waaw yaram wi di tàng ndax sama gars yi gis nga leen dañoo pare. man fi mu ne ñaq sax. da koy jar nag tey du ñu maye dara. ah na ñëpp ñaq. acca hélas ba pare ñu dem. you are. ci moom di jaay ne ma bàyyi ko yow daal xamul lu ma yëg ci moom tubaarkaala mu ne ko man bëgg naa na ma rey ne ko euh, euh, euh, waaw loolu am na solo de waaw mbëggeel damay faral di wax naan li fi demul ba ba bëgg laa yóbbu ci ci li ñuy wax xel bu xel bu naqari rek yóbboogu la fenn tubaarkaala kooku mooy pagaay mbay mu ne ko man bëgg naa na def rey daf am na ku nekk ci ligne bi de ah wala wala ñu delluwaat ci bëgg naa ko. bu la neexee. mën delluwaat. man bëgg naa sax. dinaa sax ku ci am sa séeri booy na la jaral ku ci am ki nga bëgg na la jaral la ilaha illallah kay. tubaarkàlla xam nga sànni bi paase dama fay wax ni bëy bees ñoo gën a saf bëy yu yàgg yi. waaye ndeke nekkul ci bëy yi mais ci booy yi la. <laughs> damaa yaakaaroon ni bëy bëy bëy xew léegi. ñoo gën a jonge bëy yi xewoon. ah en tout cas doy na waar mais nekkul ci bëy yi mais ci booy yi la. ah mu ne ko fi ne doy na waar de xam nga. Uh-huh. yàlla dafa dogal euh, tey ci lii ñu nekk. Mm-hmm. Euh, bëri nañu koy def. dëgg la mais bëri na ci ñoo xam ne. Mhm. maanaam koo ci laal rek. Mhm. tàq-tàq lay doon. dëgg moom laay wax chaque jour. Mhm. tey jii nii maanaam ñii ma àndal ñëpp toog. kenn koo ci tegoon fii invité ko mën naa tukki la àdduna. ah ñoom ci bëy yi laa ko ci booy yi la. non dama ne la <laughs> kenn koo fi woon teg ko fii mën naa tukki la àdduna. waaw waaw tubaarkaal yàlla yàlla dafa leen cat. amiin ndax kii nga gis mu toog. di Modou mbaay di tëgg tama ja eh, ma xam kii. man ak moom démb la. muy sama seex dañoo ànd def ay tournée yu bari. Hmm. ci Europe bi. maanaam tey bu toogee sax dégg ne pagaay génn na dara. Hmm. da koy fekk bitim réew. mais dafa may woo. Hmm. ne ma booy am naa lu ma metti man su ma sañoon sa carrière lépp looy def maa koy tëgg. xam nga loolu démb démb waral loolu. ku baax rek amul loolu. muy muy suma xarit di sama seex. kii toog suma rakk la. muy saaliw yaakaar naa bi ma koy wéyloo am na ay vidéo yu ma denc. ndax àdduna dafa gudd tànk te xale la waaye li muy def mën na ko Salo compal ñu tudd ci li nga mën waaw a ca doxalal jërëmi ci mbéy saxi mi ci lamaay pagaay dogo waaw waaw jërë jërë jërë jërë jërë mooy déggal loolu ñun de yaa ñu dalal baax paate bay dogo mooy sa baay juróomi ci mbii saxi mi ci làmmaay ma jaay jaman ma jaay ma ci tuubeel xar yàlla biram njaay jore dafa am lu nekk ci man te ma war koo yee yàlla boole maak yow te dara ñaawul li may ñaan yàlla mooy yàlla xam na yonent bi xam na jëre defal lu la neex jëre. ndeysaan tubaarkàlla <laughs> yàlla yàlla fa la ca ñu jël respectateur bi àggali waxtaan wi salaamaaleykum <laughs> allo. waaw soxna si maa ngi lay ziar. waaw yokkal kàddu gi tuuti rek mu gën a neex. acca <laughs> kooku dawaat na. waaw allo allo. waaw yokkal kàddu gi tuuti rek. yokkal baat bi tuuti rek. waaw kay noonu baax na ci loone ne. tur bi naka la. dégguma. ci loo ne mbaa ci jàmm fan ngay wootee. maa ngi wootee Touba. ci jàmm. ba. acca bàyyi ma bàyyi la ak Pagaye Mbaye. waaw. waaw. waaw allo. salaamaaleykum def. naka waa Touba. mbaa yaa ngi ci jàmm. am waaw maa ngi am contentement bu baax ci dugg bi nga dugg ci émission bi. allo. allo. ma ne maa ngi am mbégte bu baax ci dugg bi nga dugg ci émission bi. Hmm. waaw di am contentement bu baax. allo. allo. Fatou da ngay da ngay bàyyi dangay bàyyi kii bi ngay dégloo euh, télé bi te ngay déglu sa bopp ci téléphone bi rek dégg nga. waaw. Ah. Ah, ok léegi déglu si téléphone bi rek. allo Fatou. waaw. waaw yaa ngi may dégg bu baax léegi. waaw. <laughs> Ah, ok bàyyi ma bàyyi la ak Pagaye moom day bëgg di wax déglu boppam. Eh, moom dem na sax dem na ñu ngi koy ñu ngi koy xaaraat ci 33 euh, euh, numéro baa ngi noonu ci suuf de waa kay Youssou gis ma numéro parce que man sama bëti war a changé waat yeneen verre de <laughs> waaw Fatou salaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi ziar yaa ci jàmm maa bi ak laa bëggoon woote ah. yaa ci émission bi bi ak fooy wootee man la laay la coiffeur ci tali bu bees tali bu naas ana waa tali ma bàyyi la ak Fagaay Mbaye directement <laughs> laay law be maa lay ziar. <laughs> waaw kooku nag sama frère la. ndeysaan. waaw loolu moom dafa leer mais kontaan nañ bu baax. ndeysaan waaw kontaan bu baax sama frère bi. yow dara jomb la yow loo am mérite la quoi du sens. ndeysaan dëgg la. man sama gars yëpp ñu ngi toog ci place bu Paafor ci Belserrat. ndeysaan. mais gars yi bu baax. maa ngi kontaan bu baax frère. loolu ba yëpp ñu lay ñaanal. waaw sama maalaw kontaan naa ci yow. kontaan ci famille bi. yow daal jàppal ne <laughs> waaw kii sama sama xarit la sama sama lépp la. ndeysaan maa ngi kontaan ci moom bu baax laay. laay dem na ñu xaar keneen gaa ngi ci ligne bi waaw moom foog ma am lu ma seede ci moom. Mhm. ndax nit la boo xam ne yàlla moo ñu boole. muy borom gunaas nag. Mhm. bi ñu yàlla boolee ba tey mhm. chaque jour mi ngi xool lan mooy yóbbu bagaay ci kanam. donc lii rek ci geste noble la dugg ci émission bi wootee xam nga rëy na ci man loolu sama xarit bi kontaan naa ci yow yow fi ne yaa ngi yëngal àdduna sargal ko bu baax a baax yeesaay laay law benn waaw <laughs> ay ci allo salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaw kilifa gi da bàyyi téléphone bi nga déglu ci téléphone bi dégg nga moom demaat na ñu xaaraat leen ci ci ci bu mu jokkoo yi ñaari numéro yaa ngi noonu les sénégalais de l'extérieur aussi seen numéro mi ngi noonu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi aussi seen numéro yi ngi noonu ñaari numéro yi boo ci wootee rek di nga jot ki nga xam ne moom moo di Pagaye Mbaye tey moom la dalal seen émission bii di ndaanaani réew mi mais Pagaye seen inspiration fan lay jógee waaw inspiration bi dafa am fu ma tolloon sax léegi ci mhm. saaliw nii ba Baye Sall waaw mhm. dama doon àgg rek ci ñi nga xam ne ñoo ci des àggal waaw <laughs> ndax kii toog doom la ci man rakk la ci man muy karamaxo mooy mbalax waaw moom moom. moo tudd nan mooy Kara. Kara Moxo mooy Kara di borom Pikine. waaw te wax nañ taxaw ci tur bi mooy tudd nan. Kara Moxo. Kara Moxo waaw. yaa ngi dégg di borom Pikine nag di xale boo xam ne. waaw ah, mais waaw ah, daa war a nuyoo moom it. moo foog mu nuyoo. mu taña te mooy rek la mën a tudd. waaw non. moom bëri na ay tur nag des fois sama téléphone sonné ma wuyu ñu wax ma beneen tur maanaam kuy kooku xam nga booy jubuñu. Kara Mboxo léegi Kara Mboxo nuyul téléspectateur. <laughs> tudd Kara Mbaré donc moom nag géwél géwél bu rax bambara la. Ah, moo tax mu jaaxal ma. waaw. nekk xale. xam nga xam nga boo miinee boo miinee boo miinee Mali. waaw nga dégg Karamoxo ñoo gis ko mu téye mbalax noonu la demee nag mais nag naa la xamal leen de <laughs> moom bokkul ci malien yi indi dàmb mango yeeg affaire yi de moom malien bu rax géwél la. moom moom daf war a yóbbu Mali sax. xam naa ne est-ce que mës na faa dem sax. non booy fi mu ne ay tàq-tàq lañu bu ma jógee ci moom damay dem ci màgget kee nga gis mu toog màgget mu baax mi waaw moom bi muy ànd ak man ndeysaan moom it xale bu ndaw la muy tëgg ay simb bi mu jàppee ba tey bàyyiwul te fi mu ne fi nga koy gis nii mhm. bouche la day liggéey moom waaw boole ceeg nekk nag di naar naar la mais mhm. li may wax nii bëri na ay géwal ñoo xam ne géwal lañu ay tëggkat lañu. Uh-huh. moom li mu mën mënuñu ko. moom naar moo tee sabar bi. mooy tëgg nii xam nga bu mësaan ànd ak man sax ñu bëri dañ koy naan yow lan moo tax ngay. nga nekk naar di tëgg. orchestre bi unité africain laa ko war a yoon <laughs> yaa ngi dégg. Uh-huh. mo man bu bu ko nit ñi nee lan moo tax ngay ànd ak fagaay di naar. Uh-huh. ndeysaan lu bari moo tax àdduna dara du asaar. dëgg la de papaam da leen naan bàyyi leen ko. ndax tolloon nañ benn moment boo xam ne papaam da doon yëngu ci bagage yi yaa ngi dégg suñu borom nag xiir ko ci man mu bëgg ma am fu ma teg ndax gis nga ko ne bu ko neexoon su ma àndeek moom su ji ba pare na ko màgget jàppal ci lii bu ko neexee mu nguufaan ma te boobaa kenn du ci mën leen ah, yaa ngi dégg waaw waaw macha allah di xale boo xam ne xale bu yaru la am cër jox ma lépp ba mu mot màgget doxalal tuuti nuyool waaw génn na foofu fi ne dugg bi mu duggee ngéwal sax dafa yàgg. kii nekkatul naar de kii mi ngi ci biir. kii musul nekk naar. léegi nag kii mooy El Hadj Medoune. El Hadj Medoune waaw. moom it suma rakk la. Mhm. moom di xale boo xam ne. Mhm. fi mu ne clavier yi bëri na loo xam ne yaa ngi koy dégg muy yëngal àdduna bi. Mhm. luy yëngal laa la wax de bëri na loo xam ne yaa ngi koy dégg. ci loxo bii la jaar. moom booy bi. te ni nga ko gisee ni muy clavier. bu la téyeloon sabar léegi nga ne déedéet. doomu géwél la. ah moom doomu géwél. doomu géwél la xam nga mooy li nga wax léegi rek du ci bëy yi ci booy yi. ci booy yi la booy yi yàlla dafa def ci ñoom talent. macha allah. donc dë boo ko dégloo ci sabar daw mais déglu ko hélas xamul ma bëgg boo fooyee ba pare dafa am loo xam ne fi mu ne ñëpp moom la ñuy xaar te dañoo war a doser nag ah wax koy. ñu bàyyi la yow damaa bëgg moom mu nuyoo rek fii yëngu ba pare mu yóbbuwaale ñu ci troisième morceau bi ngay parce que dama bëgg mu nekk ci lu wañax bëgg moom am ruq bu sedd. jeex dama bëgg moom bu nuyooy rek. Ah. ñu àndaale noonu nga jox ñu troisième morceau bi. nga xam ne a béggalee téléspectateurs naa la c'est pas pour rien ngeen seetaan ngeen taamu télé bi di Africa 7 ndax li gën a neex te gën a baax te gën a saf ci wàllu musique fii nga koy amee rawatina seen émission bi ndaanaani réew mi tey léegi nag li muy li tama ji di wax laa bëgg a tekki waaw non xam nga yooyu dafa xew yi sunu paa yi ñoo ko doon def boo seetloo genn wàllu paa yi doon tëgg doon def yooyu ñoom ñëpp fi mu ne wàcc nañ yooyu dafa metti yooyu amatul gis nga booy léegi dañuy ñëw xam nga aar bi dafa changé. dafa changé. te boo fa nekkee di indi lu njëkk la dañ la fiy bàyyi. xam nga ay bolok lañ daan sol. xamtaan yu mag yoo xam ne tama ji sax doo ko gis. Ah. léegi nag xoolal Moodu leneen la indi. te Moodu loo indi. Mbaay nee na. tama ji nee na. ki lépp looy def. na ko jàng ba mokkal ko. nee na tamaam ji du ko yóbbu fenn fu ñuy caaxaane ci fulla rek la ko yóbbu tiit nee na du yàq yoon wi ndax dafa ñëw fekk ay baayam ay pàppaam nekk ci lépp di nice kon moom du yàq yoon wi ci wet Modou Petco waaye fii ci Sénégal yaay borom Sénégal yaakaar ne tey daa loo jël ah. dama foog ne lu mu jël tey de waaw xam nga lii dafa ñëw rek naturellement mhm. ndax euh, ci commencement bi la woon mhm. donc ñuy ànd mhm. ci commencement bi xam nga nit koo gis am na lu yàlla def ci moom dëgg la rawatina nag euh, xale dafa am lu bari lu muy feeñal. Mhm. xale dafay feeñal lu bari. dëgg la de donc man ñii bi may ànd ak ñoom du tey. démb la. Mhm. tey soog a ñëw ñu gënoon nekk ay xale xam nga. Mhm. te orchestre bi du lii rek ndax yaakaar naa ne lañ fa ba sax moo ëpp li ñëw fii. lañ fa ba moo ëpp ndax gaa yi may seetaan. xëy na tey fii lii la laaj moo tax ñuy di lii. dëgg la jotaay bay laaj lii waaw mais bu fekkoon ne tey dañoo soxla orchestre bi yëpp ñëw bu ñu ñëwee. boobaa dina gën a mitti. ay boobu émission. waaw boobaa day gën a mitti. ñu pare rek Babacar Diagne woote de. waaw noonu lay deme nag boobaa dafay gën a mitti. <laughs> borom général. ba tax ba tax na nag maa ngi wax ne vraiment ñun sunu aar bi mhm. sama mbokku artistes yi laay gën a waxal. Mhm. du caaxaan. dëgg ci gën a def li nga xam ne moom la yelloo. Mhm. ndax aar nag dafay yóbbu doomu aadama foo xam ne. ci kaw nga teg fi nga ko war a teg ndax lii liggéey la du caaxaan. liggéey la. artiste la yàlla may loo xam ko la yàlla may loo xam ne may ko borom milliardaire wala ndax da ngay nekk artiste mhm. dem ci nga dem ci ci ambassade yi mhm. salaamaaleykum ñu may la visa duñu xool ndax yor ngay milliard mhm. wala dangay ngay nekk artiste xam nga boo bëggee tukki dem tukki da ngay nekk artist àdduna bépp di la suivre kon lii du caaxaan donc li ma ciy dolli rek mooy euh, macha allah yàlla def na ne talent yi bari na trop. Mhm. mais nag talent dafa ànd ak dañ koy gérer. Mhm. dañu koy gérer. talent day day fay. waaw day fay mhm. day fay. ndax tey jii nii maanaam ñun lii ñuy def nii. mooy li ma la wax léegi rek. loo gis. àdduna day day day changé. waaw day changé. ndax bu njëkk yaa ngi koy wax léegi naan man li ma jaaxal mooy bàyyi doon tëgg bu njëkk. dañ daan yuuxoog dañ daan yi waaw mais jamono day dox. xam nga chaque année wala chaque chaque. waa yeneen yu bees ñëw. ba pare àdduna génération yi bu bii demee bee dañuy ñëw mais kuy ñëw dafa am looy indaale. mais sa digganteeg jeunes talents yi nga xam ne yéen bokk génération. Mhm. waaw jeunes yi nag yàlla dogal na ne man ak ñoom jàmm lañu ñu séq. man ak ñoom jàmm la ñu ndax man li ma gëm rek laay wax ah. dama jàpp ne aar warul tàqale. dëgg la. aar warul tàqale. dafa war di boole. Mhm. mais warul tàqale mhm. donc. kaas yee wute mais ku xëy da ngay dëgg la de tey déggate naa beneen dëgg bu bees. yaa ngi dégg. kenn ku ci nekk rek li nga xam ne moom mooy sa wërsëg di nga ko jël. Mhm. kon bu mu tax nga jël sa nawle artiste. di ko di ko di ko di ko di ko xool bët bu ñaaw. Mhm. wala ngay ngay dund ak moom loo xam ne waroo ko dund moom man loolu laay wax. Mhm. man artiste bu ma ci dajal man ak moom. day mel ni ñoo fanaan sax. ndax loolu mooy àdduna. dëgg ñun ci lii ñu nekk démb dafa am ñu ci nekkoon. tey ñun ñoo ci ne te suba dañ ciy jógee ñeneen ñëw mm-hmm. kon dañoo war di rafetal yaa ngi dégg mm-hmm. donc man moom yàlla dogal na ne artistes yëpp mm-hmm. samay gaañ lañ donc mënoo fi firi benn artiste wala nga wax fi turu benn artiste ma ne la dañoo xeex wala dañoo xuloo wala dañoo lii wala dañoo lee waaw loolu moom bokk téléspectateurs yi kooku ngeen moom la ñu war a àndal moom euh, di ndaanaani réew mi di émission boo xam ne yéen a ko choisiral benn ndaanaan tey nag moom mooy suñu ndaanaan moom la ñu moom Pagaye Mbaye di doomu Pikine ay ca Youssou bu moom moo di euh, Pagaye Mbaye mais Pagaye ñu ngi jeune talent yëpp dem grand théâtre ñu si ëpp bokk dem grand théâtre yow ba léegi gars yi na ñëwee goo dugg grand théâtre waaw <laughs> man. ndax ku gis lu xumb lii war naa mën a xumbal grand théâtre bi. non man xëy na nit ku nekk tamit philosophie bi ngay am ah. mhm. man xëy na demaguma grand théâtre mhm. mais sama bët romb na grand théâtre waaw grand théâtre rëy na de. waaw déggoo li ma la mhm. xam nga ñun ay nit lañu. te li ñu war ñu ngi koy def mooy liggéey. dëgg la te nit ki boo liggéeyee. ci li nga nekk. da ngay ñaan yàlla dem ci fu sori. dëgg la te pour nga dem ci fu sori. il faut yow nga gëm sa bopp. Mhm. dëgg boo gëmee sa bopp. Mhm. yor loo xam ne nit ñi tamit ñu ngi koy ñu ngi koy consommé. Mhm. ndax vraiment yàlla dogal na ne ñi ngi def loo xam ne àdduna ñu ngi koy consommé. man sama bët bi fu raw grand théâtre laa ko teg dama ko wax sama anniversaire passé dañ na ma pagaay yow dañoo seetlu à chaque fois booy def anniversaire da ngay jël di ko def ci banlieue bi ma ne leen lu jot yomb bëgg a dem bëgg a dem taxul may dem damaa war a dem moo tax may dem. dëgg la ñëpp ñu ngi grand théâtre tax ma ne damay dem grand théâtre mhm. ñëpp dem nañ fa dama fay dem. Mhm. mais grand théâtre am na saal yu ko gën a mag. Ah, fii Sénégal am na. am na am na ay bayal yoo xam ne. Ah, ay gàddi bayal la yoo xam ne ay àll xam nga te sax te sax man ni ma gisee grand théâtre ñu koy organiser. Mm-hmm. mun naa ne man sax war naa ko mën a tëgg feesal ko ndax léegi da dem da ngay tëgg grand théâtre ay supporters ñoo fees ak ay fans club. noonu la demee. donc eh, jël ay kaar yëpp ci ay nit ñu fees. te man nag dinaa la wax benn affaire man fi ma dëkk. Mm-hmm. su ma doon dem grand théâtre ne la samedi bii laay dem. balaa jeudi nga dégg bii jeex ay ca 33 896 98 01 mooy numéro bi nga mën a wootee pour euh, jot ki nga xam ne moom moo di Pagaye Mbaye gars yi dañuy insisté bu baax ci li moom moo mu xaw a saturé mais ñu ngi leen di xaar mais nag nga gisee tey ñu lay xaar grand théâtre yow nga ne am na salle gën a rëy grand théâtre waaw mooy li la wax rek xam nga mel ni seen koñ am na Bercy de fi ngeen tuddee Bercy waaw suñu koñ am na fu tudd Bercy donc euh, waaw yooyu moom yaa ngi fa sax de naa fa yàgg naa fa joué yàgg naa joué ci yeneen i koñ yoo xam ne mhm. ay koñ yu mag la dañ koy teel a préparé def ko événement bu mag mhm. yaa ngi dégg mhm. euh, soo déggee ma ne la man sama bët bi dama ko teg fu ëpp grand théâtre il faut artiste bi muy xam ne moom warul nekk artiste su Sénégal rek dëgg la ndax da ngay toog fii dégg benn artiste ñu jëlee ko bitim réew fay ko ay millions yu bari te yow li ne ci moom amaana sax lu ko raw mi ngi ci yow. dëgg moom muy jugee dëkkam di jéggi ay frontières. yow lan moo tax mënoo opté yow jéggi frontière. dem fa mu dëkk jël ñu bi salaamaaleykum. maaleykum si maa ngi lay ziar. ci jàmm. maa ngi ci wootee. maa ngi ci jàmm bu baax a bi naka la ak fay wootee. maa ngi tudd Adama. Adama dëkk fan. Adama ngi dëkk Pikine Tali bu bees. tubaarkaala ana waa Pikine. ñu ngi fi jàkkaarloog takaay rek nag sama xol sedd. ndeysaan kan baax a baax waaw borom tama bi moom li nga sañ si amul sedd. waaw waaw koy Modou. <laughs> bokkul ak tamakat yi njëkk yi sama xol day sedd. Adama. bu tàkk. ndeysaan dëgg la. nag. ndeysaan dëgg la dama ko bëgg yal na ko yàlla defal jàmm salaam. yal na ko yàlla may gudd fan. amiin may ko wér gi yaram. lépp lu muy yorotu ci àddina mi yal na ko yàlla yal na ko yàlla may. ndeysaan amiin amiin. yal na leen yàlla may gudd fan ak wér gu yaram ak jàmm ak salaam. amiin amiin ndax moom dafa baax. ndeysaan yaatu. Mm-hmm. bëgg nit. xale bu ndaw mën na ko fanaan loo àll. ndeysaan. kon yal na ko la fal cat ci doole yi laa ilaha illallah maa ko tibbee sama biir xol. ndeysaan jërëjëf. jàmm rek lay am. macha allah man ngeen continuer nag. ndeysaan kontaan naa damaa bëgg nga bàkkal mu lekk balaa maa coupé nag. gaawal ah loolu kay du loolu kay du problème. naa damay programme benn émission boo xam ne 33 tamalaay indi ci studio bi. boobaa damay wax Youssou mu baal ñu rek mu toog ci suuf bàyyi ñu. <laughs> mais Adama war naa kontaan donc moom it maa ngi kontaan ci moom. ndax nit moom lu jógee ci xol rek ci xol lay dem. dëgg la donc li ma ñaanal lépp. Mhm. dégg naa ko. Mhm. jërëjëf yal na la yàlla fay. Mhm. donc àdduna nii la rek. man lii laay wax. man fi ma dëkk dañoo solidaire. waaw Pikine. waaw muy Pikine. ñun lii la xam. ñoom seen ginaar buy dem di xeex gaynde keneen sax ginaar ga la ñuy faral te mooy gañe maa xam waa Pikine waaw donc maa ngi kontaan di ñaan yal na yàlla dolli jàmm mhm, amin yal na yàlla def jàmm mhm. merci beaucoup Adama kontaan naa mais mais mais sa diggante artistes yi nga xam ne ñoo mhm. surtout ñi nga xam ne amaana mën nañ xamaguñu leen te bëgg bëgg ñu xam leen sa digganteeg ñoom naka la demee waaw sama digganteeg artistes yi nga xam ne ñoo nekk biir Pikine yàlla dogal na ne bon ñi nga xam ne ñoom laa yamal génération Euh, man ak ñoom ñi ngi ñi ngi am link yu baax ñi ngi waxtaan ñi ngi sottante xel ak xalaat ñi nga xam ne su may rakk lañu vraiment li nga xam ne mooy respect bi jox nañ ma ko ba mu mat sëkk ndax mooy li may wax rek ay rakk lañu te tey jii nii ñoom ñun fi ñu jaar mhm. ñoom foofu lañu ñu bëgg a jaar mhm. donc dafay dafay rafet des fois ngay waxtaan ak ñoom di leen teg ci ak xamal ne leen ne affaire bi nii la ak fii la ñu jël ko ci ligne bi waaw <laughs> salaamaaleykum allo allo ça va soxna si waaw na def ba yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla naka yitte yi allo oui ma ne naka yitte yi tur bi naka la ak fay wootee ndeysaan tur bi naka la. waaw man nag géejawaay laa dëkk damay leb tur bi. ah géejawaay mais da leb tur bi. waaw. <laughs> ayca bàyyi ma bàyyi la ak Pagaye Mbaye. waaw Pagaye maa ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi delloo ziar bu baax waay. woote ci télé. ak la première fois ma woote. dëgg la ndeysaan dëgg la. waaw man nag dam xamuma la xamuma la fenn dama lay seetaan ci télé bi ngay liggéey mu rafet ma ne woon naa la woo. encouragé la te tamit ñaanal la ta xale nga tax sa talent macha allah. dëgg la ndeysaan ndeysaan dëgg yàlla te xale moom boo nekkee ci yoon gis ko muy def gisoo ko ci dara lu bon ko muy mm. def lépp te fekk tamit rafet na nga woo ko encouragé ko moo tax woon naa la woo mm-hmm. yaa la ñaax di la wax ni li li gis sa liggéey rafet di la ñaax di la ñaanal nga gën a góorgóorlu jàppoon benn jàpp ko ndax nit bu la bëggee rek loolu rek dafa rëy dëgg la waaw donc man nag lay ñaanal baax. wax dëgg yàlla xamuma la. man su ma koy dem spectacle mais damay apprécier li ngay def. dëgg la di gis say li nga def fonk nga ko te yaa ngi ci góorgóorlu am solo ndax aar dafa nekk loo xam ne c'est quelque chose important. la te gis naa ni def nga ci fulla def nga ci fayda donc dama lay ñaanal yàlla yal na la yàlla sàmm. allahumma amiin yàlla taxawu la. yàlla jàppale la. ba lépp li nga xam ne bëgg nga ci aar ah, borom bi defal la sallallahu alayhi wa sallam maa a la lay suivre yàlla defal jàmm xaw képp ku la amin amin naa kontaan naa di ko nuyu du nuyu waa Géejawaay yëpp ndeysaan allahumma seetaan te rafetlu leen liggéey bi ñoom yal na leen yàlla sax. amiin amiin amiin àdduna moom nii la gis nga boo nekkee ci dara di liggéey di mm-hmm. déglu wax. Mm-hmm. di déglu ñu la soxoree ak ñu lay reetaan. jàppale sëñ bàyyi ndax yàlla moo ñu boole. ñëpp njaboote. dëgg la waaw te lépp dina rafet nag. loo ci nekk rek. incha allah tegal lépp ci loxo yàlla liggéey góorgóorlu am jom. dëgg la ndax jaamu yàlla la bu la kenn gisul bon bu la kenn gisul lay ñàkkal fayda. la artiste la amal Mm-hmm. daay wallaay liggéey day fay te boo liggéeyee day fay. incha allah dëgg la dëgg la ak ñu jaajëfal ko bu baax a baax. amiin amiin amiin yal na yàlla taxawu leen. amiin vraiment félicitations. amiin amiin amiin amiin <laughs> jërëjëf ñu ngi koy sargal baax a baax lii dafa lii dafa sedd xol. dafa sedd xol lii naka la lay def yow en tant que artiste. nit di wax di la defal seede yu toll nii. gis nga man dafa am benn benn benn système bu may demee. ndeysaan système bi mooy. Mm-hmm. man dama jàpp ne ñoom. Mhm. ñoom ñooy sama patron. dëgg la. xam nga lii. Mhm. nit ki nga xam ne xamoo ko. Mhm. da lay rek. jël temps toog di la seetaan. temps moo gën a cher. dëgg ci àdduna rawatina nag mu jël alalam dem jënd crédit ko ci def. nga mën a ñu invité la. mu préparé ko woo la téléphone. donc kon kooku mooy sa patron. dëgg ndax maanaam ñun li ñuy def bu fekkoon ne dañ koy def. te duñ ñu suivre amul sens. am na kenn kuy suivre sax ba def 33. Euh, euh, ah, euh, huit cent Youssou jox ma numéro bi. allo. 896 92 salaamaaleykum. 09 waaw maaleykum salaam. Youssou billaay dinaa sànni ay verre gisatuma dara <laughs> salaam kilifa gi na nga def. waaw maa ngi jàmm. maa ngi jàmm bu baax a baax. waaw maa ngi baax a baax. alhamdulilah tur bi naka la. waaw man la Aziz Aziz Aziz Tama. Aziz Tama. Aziz waaw. <laughs> Tama nga mën a sant yow it. Tama rek laa sant. <laughs> Aziz fay wootee. waaw maa ngi wootee Thiaroye. ana waa Thiaroye. Thiaroye Samsam. waaw waa Samsam. waaw Samsam 1 wala Samsam 3. non Samsam 3. Samsam eh, maa miin fi nga dëkk. <laughs> ma bàyyi la ak Pagaye. waaw Pagaye. waaw Abdou Aziz. waaw yow amal jàmm rek. ndeysaan maa ngi kontaan de frère. yow yow ku baax la barke yeneen bi. dëgg la. yow yow yow li nga am ni da nga ko mérito. Mhm. dëgg la. waa ah, parce que ku baax nga. Mhm. dëgg la. te yàlla yàlla xam na li may wax nii. te dafa nekk ci man. ndeysaan. so ah, am na boo meloon neneen tamit du mu dugg. mais yow bu bu la invité yi ba mu dugg. wax ci yow lu baax. ndeysaan. yàgg Modou Mbaye moom tamit Modou Mbaye borom boy bu baax la moom. ndeysaan dëgg la. ak sa gars yow yow moom yàlla na yàlla defal jàmm rek yéen xam daal loolu bëgg ci seen àddina. ko yàlla defal. allahumma amiin amiin. leen ba yàlla yokk leen ba nga néew ko. li nga li nga xam ne moom leen bëgg seen àddina rek yàlla ko yàlla def. amiin amiin waaw kontaan naa kontaan naa trop barke yeneen ji. yow ñoo la gën a béy. gisagoo dara nag gisagoo dara lii ana ana daanaa la ana daanaa la ko tuddee. gisagoo dara barki yeneen diw. dafa baax dafa baax. waaw yàlla xam na loolu. ndeysaan dëgg la. waaw barki yeneen ku baax la. dëgg la dëgg la ndeysaan waaw yow amal jàmm rek. waaw yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. waaw kontaan naa. ma ni kontaan naa bu baax. waaw ni ma wóolu bàyyi bu baax. waaw ak gars yi fi foofu yëpp. gars yi dañ koy dégg incha allah waaw jéem kontaan ci moom ñu sargal ko baax waaw Aziz uh-huh. Aziz moom nit ku baax la moom it ndeysaan dafa ñàkk ki ñaan rek uh-huh. ndax moom it ku nekk xam na ko mu nekk ci titi di ko tëggal bëri na fi ay ay ay affaire yooyu dégg moom moo ko tama moo ko tama mais mooy li ma la wax léegi uh-huh. aar dafa war a boole warul tàqale bu ko neexoon mu ne bagaay fee mu toog moog Modou Mbaye ñoo fa ne du ma woote mais dafa woote wax lu rafet ndeysaan ba nuyu Modou Mbaye yal na yàlla doon jàmm man Modou Mbaye mi sax damay dama koy dama koy dalal ci plateau muy ay ay tama salaamaaleykum maaleykum kilifa gi maa ngi lay ziar ah, ziar delloo ziar jàmm tur bi ak fooy wootee maa wàññil wàññil wàññil bi ñu waxtaan ci téléphone bi dégg nga allo ah, kooku dem na ba tey ñu xaar ndax moom mi ngi doon wootee buun ah, mais xam nga bu fekkee da ngaa woote rek da wàññi li nga xam ne moom moo di sa sa di dégloog sa téléphone ndax waxtaan bi day gën a neex ndax boo yokkee télé bi may dégg sama bopp man du ma neex ok boo woote rek da ngay wàññi sa télé daal waxtaan ci sa téléphone directement as yaa ngi nekkoon ci assistement waaw mhm. ma ne ma ne ma ne yàlla na yàlla dolli jàmm ci ci ci ci ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla def <laughs> maa ngi lay ah bi ak fooy wootee. maa ngi tudd Amadou. ah Amadou. waaw Amadou fooy wootee. maa ngi wootee yëmbal. ana waa yëmbal mbaa ñëpp a ci jàmm. waaw ñëpp a ma bàyyi la ak Pagaye Mbaye ngeen waxtaan. waaw. ayca Pagaye wax la ak <laughs> waaw Amadou. allo. allo maa ngi gërëm lu ngeen def kontaan naa ci de. waaw jërëjëf waay Amadou. Amadou dégloo sa téléphone rek nga baay tele bi ngay dégloo. ñu nit kontaan nañ ci yow allo. ayca Amadou dem na ñu xaaraat keneen waa yëmbal yëpp. donc fa laay jaaree du ñoom Matar. Mhm. nga xam ne ndeysaan euh, mbokk bi yaay béy di moom moom ak béy di sama benn rakk ñoo bokk benn baay. am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jóobaale ko. daal di ànd ak moom dafi ambiance salaamaaleykum <laughs> ay kooku demaat na. waaw <laughs> mbégte daal am na waaw ñu ngi kontaan bu baax di jégalu tamit ci ñi nga xam ne dañuy dugg mais mënuñu waaw mënuñu kii man dama bëgg sax dama bëgg sax ñu jox ma benn benn question vidéo ci ci bi mu laaj la question benn question ok bu ñu jógee ci ambiance bi quoi. parce que bëri ñi nga xam ñi ngi bëgg a woote. Mhm. bu ñu defee appel vidéo rek dinañ mën a am ki nga xam ne moom moo nekk régie. après ñu dugal leen ngeen waxtaan ak ki nga xam ne moom moo di seen ak ci innovation gi bees dañuy dox boo defee appel vidéo ci numéro boobu nga gis rek après di mën a waxtaan ak ki nga xam ne moom la nga wax delloo ko mu daal di neex ba ci loolu nga defar ambiance en attendant gars yi lijjanti loolu waaw lu lu war a mën a nekk la ok ah, noonu lañ koy doxalee léegi nag xam naa ne damay ñëw ci li nga ah, la réew mi bëgg ah allo salaamaaleykum waaleykum soxna si yaa ngi ci jàmm maa sant yàlla bu baax. tur bi naka la ah très man jàmb laa tudd. jàmb ana waa fa ngay wootee. ay nuyu jotaay. waa Kër Masar laa dëkk buun. ana ana waa Kër Masar ñëpp a ngi ci jàmb. ñu ngi jàmb waa. waaw ma bàyyi la ak Pagaye Mbaye. waaw sama fans boobu laay déggee noonu. ndeysaan jàmm ñu ngi lay siyaar bu baax. dama laa bëgg pire sama téléphone yow rek yaa. ndeysaan ndeysaan dëgg dëgg la allo. ay ah, dem na jàmm ñu ngi lay nuyu di nuyu Kër Massar yëpp. dèjà ah, mhm. di kontaan ci moom. di wax ne yàlla na yàlla dolli jàmm. amiin ah. dañuy ambiance sax waaw. yow loolu nga nam rek. <laughs> ah man dama man problème mu tama laa am. waaw. <laughs> sans problème yëpp loolu la. <laughs> yaa ko doon fecc may kontaan dee ma doon liwaat. yow dikkal yaa ko doon fecc may bég moo di nga ma doon liwaat yaa ko looy lambar lambar looy lambar lambar looy lambar lambar looy lambar lambar looy lambar lambar adu ñu dem yàlla xam nga xam nga yéen xeetu neex-neex yi damay bëgg yéen saa yi toog sama salon seetaan kon yéen ñuy toog seen salon seetaan jàppale ni yéen a ngi seetaan lu neex da ndax man fi ma toog ni maa ngi yëg ni mi ngi neex <laughs> doo delluwaat foofu ah fi nga nekkoon baax na de foofu baaxoon foofu baaxoon na kay ah baaxoon na kay yow xale bi kaay waay yow ñëwal waay kaay waay yow dikkal waay yow kaay waay yow xale bi dikkal waay yow kaay waay yow dikkal waay Modou Baye kaay waay yow dikkal waay yow kaay waay yow dikkal waay yow kaay waay yow dikkal waay yow kaay waay naay waay yow dikkal waay yow naay waay yow dikkal waay yow naay ko doon fecc muy bég moo di nga ma dolli waat booy ayca tubaarkaala yaa ko doon fecc mooy kontaan mu ne ko waaye wallaay ndeysaan man maa toog ci émission bi sax fekkee léegi di bëgg lool tubaarkaala yàlla na yàlla defal ko jot moom kii nga xam ne moom moo di ah, Pagaye Mbaye di doomu Pikine waaye itam di doomu banlieue bi juddoo Kaolack ah, màggee fii nga xam ne moom moo di pikin ndax Kaolack boo ko waxee rek sa xel day nekk ci day dem ci aar famille Seck jëri ji yëpp maa ngi leen di nuyu te di leen sargal lu bëree bëri euh, Babacar Seck euh, sama waa ji maa ngi leen nuyu di la ziar te di la sargal lu bëree bari waaye itam di sargal bu baax a baax su kay na euh, taalibe Serigne Saliou borom njurul ak xabbaan ak jàppandal ak ndookaa su kay na borom unité Toura di la ñaanal rek sëy bi xam ne moom ngay dugg yàlla ci suñu borom def xéewal yàlla ci yàlla def njaboot gu barkeel su kay na euh, sama cousine la nag xam naa takku dënn bi moom maa ngi koy xaar su kay na mu baax mi te bëri jom mooy borom unité 3 su kay na ñu ngi lay nuyu te bu baax a baax waaye itam a euh, euh, di leen béggee di leen kontaane lu bëree bëri Abdou Aziz Mbaye douanier maa ngi lay nuyu te di la ñaanal yow it heure ménage yàlla yàlla defal la jàmm sëy bi nga a baax salaamaaleykum allo. maaleykum soxna si maa ngi lay ziar. waaw bàyyil télé bi ñu waxtaan ci téléphone bi. naka yi tey. mooy dangay ngay wàññi sa waaw wàññil sa télé ñu waxtaan ci téléphone bi tubaarkàlla. waaw sori naa ko. Ah, ok sori ko bu baax a baax. <laughs> ci loo ne yaa ngi ci jàmm. ñoo tur bi naka la. tur bi naka la bébé bu nan. bébé bi tey. bébé bi fooy wootee. ah. fan ngay wootee. bébé fi ngay wootee xumu na de <laughs> tubarka ñu ngi lay xaaraat bébé bi tey <laughs> aca numéro yaa ngi noonu ah 33 896 98 09 boo ko defee rek di mën a jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo di Pagaye Mbaye mais Pagaye. ambiance bi naka la leen di duggee yéen ngeen di ngeen di ngeen def yenn bagage yi inspiration beeg yooyu noonu parce que mës naa dégg sa benn waaye nga ne yaa ngi may use. waaw euh, ambiance bi xam nga tey maanaam dañoo toll foo xam ne nit ñi dañuy bëgg ambiance. dëgg la doomu aadama yi foog nga leen di yëngal. waaw comme sama classe gi. waaw man fi mu toll maa ngi ñaq di fenn di ñaqaat rek. des fois mën nga mën nga mën nga romb nit wala des fois. Mhm. ñu invité la fenn sax dina laaj ne la. pagaay yow lan moo tax lépp looy def rek ambiance la mm-hmm. doo wax loo xam ne maanaam mm-hmm. lu yeete la wala dara mm-hmm. ma ne leen mbir mi dafa am yoon dëgg la mbir mi dafa am yoon de ah dëgg la dëgg lépp luñ fi def lu ne rek fekk nañ gars yi def ko ba pare mais nit ñi boo leen di defal da nga leen defal li ñu bëgg dëgg la ambiance bi nag day ñëw naturellement ndax boo ñu fekkee ni ñu dëkkee amul amul amul dund tubaab ku nekk tëju sa néeg wala non. dañuy dund ñun ñëpp. dund ambiance waaw dund ambiance. balaa moom kër géwél sax bu añ bi neexee dañuy génnee sabar. noonu la demee. <laughs> maa yàgg fekkee rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñun ñooy ànd ñun ñëpp. noonu la ñuy dundee. dañuy jékki-jékki tey ah. Mhm. kër pagaay la wala kër boogaa la. wala kër kër suuri la. ah wala néegu bëy di la. buñ fa dajee gaa yëpp ay ñëw. ñu toog waxtaan bi ci biir waxtaan boobu nag. ambiance ambiance waaye waxtaan bi am na ko ay mbóotay génnaar. <laughs> salaamaaleykum. yes. maaleykum salaam. soxna si yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu eh, nan nga tudd. ah. waaw. waaw. Anta. waaw. allo. dégguñu bu baax. waaw. Anta Gueye ah kii nag sama sama lépp la. ndeysaan Anta Gueye. Anta maa ngi lay siyaar te kontaan maa ngi sant. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. ndeysaan dëgg la. ndeysaan ndeysaan. waaw lool de am na loolu de am na. bu bu ñu neexee dañ naan la jërëjëf mbay bu ñu neexee ñu ne la mbay dogo. waay bilaay bilaay. waaw ndax yow si nga bokk dafa ri dëgg la ndeysaan ndeysaan. Anta Jimmy ku muy sa papa. Faata di sa papa. dëgg la. Euh, Sambay Mbay di sa pàjjam maam yi ñoom Sambay dabal def si yàlla si. ndeysaan dëgg la. ñoom bopp ah. ndeysaan vraiment nga bokk ci famille bu baax. dëgg la. waaw bu ñuy demee ci sa côté yaay noonu la même chose. dëgg la. sa yaay jërë nekk ku baax wax dëgg yàlla. ndeysaan dëgg la. seen kër dama na xamoo ko sens interdit. dëgg la. lay waxtaan ak sa bàjjen Sambay Mbaye. dëgg la dëgg Anta. yàlla may la gudd fan may la wér. allahumma amiin. amiin may la xéwale saawan baawan ci bàcc sëriñ Saliou. amiin allahumma amiin amiin amiin. waaw ndax yow da ngaa baax da nga yaru. ndeysaan. la ñaan la rek xéwale saawan baawan. allahumma amiin amiin amiin amiin. yàlla defal la jàmm defal la xéwal. amiin la ci jotal balaa ak làmmiñ. allahumma amiin amiin. la ci lépp lu bon bool la ci milliardaire sëriñ Saliou. allahumma amiin amiin amiin. nga yàgg di dëggal. allahumma amiin amiin amiin. vraiment ñu dëkk Pikine dëkk nga mhm. nekk xale bu yaru dëgg la bu baax nekk jël talent li ngay def respecté ñëpp bagage bi si gesine kenn boo ko gisee tey nga gisaat ko suba même sa yaay lay nekk dëgg la kon wala neexoon nga beew mhm. macha allah yàlla ngay dimbali yàlla ngay teral dëgg la yàlla na yàlla gën a teral amiin yaay teral sa papa amiin amiin amiin teral say bàjjen terwaat tukki yëpp ba teralaayoo man mi amiin amiin amin amin yow yow xam nga ne yow yow yow xam nga ne lu ma am yaa ko moom ndax li ñu bokk mënuñu koo séddoo donc maa ngi kontaan ci yow bu baax di kontaan ci geste bi di di jël lépp nag di ko jox sunu bàjjan jooju aadama juuf waaw mu mu tas ko famille bépp waaw lépp moom c'est la waaw famille Yaaboy Ndaw. dëgg la famille Adama Diouf. dëgg la. ak famille Setta Mbaye Mbaye. dëgg la dëgg la. bu ma ñëwee seen jëkkër boobu man dama laa jàpp ba yàgg na. dëgg la dëgg la. ba léegi nii. da ngaa mas a def gëstu bu rafet boo xam ne dama ko fàtte ala yow mi aj ñu jaajëfal ko bu baax. aj ñu ngi lay ñu ngi lay sargal bu baax Anta. Anta mel xol bi sedd na waaw xol bee sedd. <laughs> aj ñu ngi koy bëggee di ko di ko sargal lu bare bari Anta di la kontaane bu baax a baax di ñaan yàlla li nga fi ñaan yàlla na ko suñu borom def ci àdduna bi. def ko euh, ci ci kii àdduna bi yëpp ba coronavirus bi nga xamante ne moom moo nekk ci réew moom it mu daal di fiy jóge ci jàmm ba gars yi di laaj Macky Sall kañ la ñu tëgg ñoom it ñu mën a dem tëggi <laughs> pagaay dafa mel ni li ñu cër la ci waxtu mi ngi jàpp jëm mi ngi cër la woon ci waxtu jàpp jëm ci jeex. waaw léegi dañ lay bàyyi nga def morceau bu ñuy tëjee rek. ah voilà <laughs> léegi damay tàggatoo wala ma def morceau ba pare soog a wala ma tàggatoo soog a def morceau bi. non tàggatoo. waaw ma tàggatoo. waaw ñu def morceau bi tàggatoo. ci bu lay neex loolu mën naa ne donc li may tàggatoo rek mooy maa ngi kontaan mhm. bu baax ci képp koo xam ne soppe nga. Mhm. ñi dugg ak ñi duggul ñu toog di seetaan ak ñi nga xam ne. seen temps euh, tënk na leen donc maa ngi kontaan ci ñëpp mm. encore di gërëmaat waa Pikine ndax sa fans yi nga xam ne léegi danoo xewal pas sa fans yi sax mais fans yi nga xam ne mm-hmm. danoo xewal def affaire supporter ci affaire ci musique bi léegi waaw ban boo leen doon conseil loo leen di digal waaw ndax fi mu toll nii boo xoolee ku nekk day xëccu ne sama artiste moo gën a aay te yaakaar naa musique Sénégal soxlawul loolu léegi waaw loolu nag nañu nañu nañu bu ñu wax dara fans yi mm-hmm. nañu xool suñu bopp xëy na loolu ñoom ñuy def peut-être ci ñun lañu gis ni ñuy doxalee moo tax ñuy defee noonu yaa ngi may dégg. bëgg naa la gën a dégg. waaw pour nga gën ma dégg dama ne la. waaw comme fans léegi. Mhm. dañuy def affaire bi affaire far. fans club waaw far ci mhm. kii far ci bañ a far ci kee wala nii ak nii mhm. comprendre nga loolu peut-être ñun la ci artistes yi ñun ñoo war a booloo buñ boolooyee rek suñuy soppe dañuy booloo. dégg nga kon da ngaa gis ne artistes yi ñoo boolowul. non nañu nañu nañu booloo nañu gën a booloo bàyyi moytonte bi mhm. ak gis nga chaque jour ñun nigériens yi chaque jour. Mhm. américains yi chaque jour. Mhm. Euh, indo yi dañuy yee. yee bi mooy da nga jékki-jékki gis ñaari ñaari ñaari star yu mag. jékki-jékki def benn morso te loolu dafa war a am. fii Sénégal ñu bañ di moytontee. mais maa ngi lay ay duo ak ay maa ngi koy def. Mhm. déggoo ma ne la maa ngi koy def xam nga tey bu fekkoon defuma ko ñëw toog fii di ko wax safewul dëgg mais dama ko def def naa ko ay artistes te dama koy defaat ak yenn artistes incha allah. Mhm. ndax aar mooy loolu. Mhm. sunu papa Youssou Ndour ak Omar Pène. def nañ ko fi. Ah, waaw ak ak ak Thione Seck Ismaïla Lo. yooyu dafa war di am dañoo war di ko def moo tax ma ne la. donc da daan gis ki nga xam ne moo bëgg Youssou Ndour buñ ko tegalee morceau Omar Pène da koy da koy enjoy. dëgg la c'est parce que boobu ñoom nañ doon dundee la dañuy demalanteeg jàppante bañ a moytu kenn. Mhm. moo tax ma ne la du ci soppee yi ci ñun la nañu xool ñun artistes yi nu ñuy doxalee. xam nga fi mu ne boo gisee artiste buy tëgg sax yow mi nga xam te ni artiste nga da ragal dem ci programme bi. si si waaw si ndax loolu moo am. loolu moo am tey. Mhm. ndax aar dafa toll ci dimension yoo xam ne. kenn mënut wax lépp. Mhm. maanaam kenn mënut a wax lépp. moo tax doy na waar daal. léeg-léeg nga dem ci benn programme boo xam ne da ragal sax jël micro bi wax de. waaw doy na waar doy na waar Moussa programme boo xam ne dugub ak sànqal ak lu ne gis naa ko ci tubaarkàlla <laughs> mu ne man. waaw doy na waar mais <laughs> mu ne baa gars <laughs> waar mais nag li ci am solo rek mooy. Mhm. Euh, liggéey te ñaan yàlla yàlla yal nañu yàlla defal jàmm. donc euh, yàlla teg ñu ci yoon bu bu baax boo xam ne maanaam. du du am du ñu gis dara loo xam ne lu ñuy yóbbu ci côté bu bu baaxul la. Mm-hmm. donc man loolu laay wax rek. après pour corona yi pagaay fan la jëm. waaw pagaay nag actuellement samay soppe mayuñu ma dara. Mm-hmm. des fois sax damay def video ba bëgg ko def samay sati mais dama koy dindiwaat ndax tout le temps dañ may woo pagaay yow boobu ba tey dégguñu la affaire yooyu. Mm-hmm. ma ne leen pourtant de. maa ngi leen préparé ay affaires yoo xam ne incha allah léegi tey. mais nag dinaa la wax dara. Euh, def naa ak El Hadj Keita benn morceau boo xam ne duñ ko bokk la tudd. duñ ko bokk duñ ko bokk. du ngeen ma tuuti. waaw non loolu <laughs> nañu bàyyi rek incha allah bu ñëwee mooy lool duñ ko bokk. Mm-hmm. benn morceau bu ma def ak moom incha allah bientôt léegi mu génn di wax ñëpp nañ ko xaar nag. bu ñu jugee ci loolu. Mm-hmm. donc comme man tamit dama nekk ci ay loxo am staff ñu may teg ci yoon dama nii ngay defee ak nii. Mm-hmm. nekk sama ménagère mu naa ma nii nga koy gérer ak nii ak nii. donc looloo tax. munuñu tëb rek ndax carrière dañ koy gérer mhm. looloo tax mënuñu tëb rek di génne ay affaire mais bon yàggatul nag mhm. nañ ma xaar bientôt incha allah ma ñëw jox leen benn affaire. single single wala album. no <laughs> album bi moom daas nañ fanaanal. parce que pagaay gars yi ne nañ léegi single ngeen xewal da bàyyi album. waaw ma non du question loolu sax du question loolu xam nga album tamit maanaam man mooy li may wax li ma enregistré ëpp na ñaari album. Mhm. man bëri na fi studio yoo xam ne boo fa demoon léegi fëgg ñu tegal la morceau pagaay. dama ko fay enregistré bàyyi ko fa loolu bu ma ko dajalee mën naa ko def album mais dafa am lu ñuy wàcc benn album boo xam ne euh, ménagère daal am na lu ma téye nee na ma daal am na lu muy préparé loo xam ne dina ko génne incha allah na ko nit ñi xaar dina ko génne mais avant loolu dafa am lu ko jiitu dañoo bëgg ñaman leen benn ñaar ba ñett ay single yu saf sap ba ñu enjoy ko mu indi leen leneen nag incha allah album mën nañ cee xaar pourquoi pas ay ay yenn genre sonorité Inde wala Sénégal wala Nigéria. lu mu laaj rek ndax man aw ma frontière de fi mu ne yow mii toog sax bu ma waroon def morceau boo xam ne morceau animateur la damay ñëw takk jaaj yi di wax dama koy def ndax man noonu laay dundee suñ ne ma demal déglu indo bi pour def morceau bi ma dem déglu ko def ko ndax. looloo ma may tey jii nii maanaam liñ naan li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi te jig na la. am na loo xam ne yàlla suñu borom def na ko ci man ba pare. mooy maanaam. tëgg mi géwél gi marimba bi mbalax mi mu saf sap loolu mu ngi fi mais nag damay dem wuti leneen loo xam ne bokkul ak loolu su ma ko boolee mu nekk leneen waaw mën nañoo xaar Pagaye Mbaye ak groupe am tournée nationale pourquoi pas ñun ñun yàlla dogal na ne bon ñi ngi doon def ay tournée ndax génn nañ fii dem ay Gambie ay yenn affaires yi xam nga ci ci génn mais dafa am loo xam ne bu jotee dafay yobbu ñun ñi ngi ci yoon wi di liggéey te ay borom karawu ñuul lañu te fi ñu jëm ragaluñ ko ñeme nañ ko. donc incha allah ni ko gars yi di defee rek feeraay bi <laughs> ñoom ñëpp dinañ ko laal bu soobee suñu borom. groupe bi moo tudd. groupe bi euh, Dogo Wareef. Dogo Wareef waaw. waaw noonu la tudd. nag léegi mu dañ la bàyyi nga tàggoog ak téléspectateurs yi seetaan. <laughs> waaw di di di kontaan bu baax di gërëmaat euh, sama soppe yi maa ngi kontaan ci ñëpp di nuyu tamit euh, waa Kaolack yi. Mhm. ndax fa laa juddoo. maa ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu waa Mbaaw fi nga xam ne sama famille fa la ñuy yeewoo. maa ngi leen di nuyu Petit Mbaaw. Mhm. Grand Mbaaw tamit mhm. xam nga. Mhm. Mbaaw gépp maa ngi leen di nuyu. di wax ne fépp sama soppe yee ngi fépp. bébé Modou. maa ngi lay nuyu nee na ma may ma dédicace may naa la dédicace <laughs> ah sunu yaay nday ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di di di may dédicace sama benn doom nag Serigne Ndiaye ah. maa ngi koy may dédicace ah. donc di kontaan ci sama gars yi. di nuyu di kontaan ci ménagère Boga. Boga waaw moom gis nga. moom moom moom moom bëgg naa ci wax kilo liibar ndax euh, bëri na ay ménagères yoo xam ne waroon na ñëw xool ci moom naka lay doxalee moo koy doxalee. waaw ku ku baax la ku ku yàlla ku yàlla ku yàlla ku yàlla euh, euh, defal jàmm la. moom boogaa ñu ngi koy ñaan mu yàlla defal ko jàmm ju bëree bëri. ànd bi ngeen ànd yéen ñaar yàlla suñu borom def xéewal. yàlla ci disque d'or ñëw. parce que bi ma ko woowee ne ko damaa soxla Pagaye Mbaye émission rek daf ma ko yombalal trop macha allah. te bu neexoon mu woon na koo gën a moom boogaa moom it ñu ngi koy euh, sargal di ko béggee di kontaan ci moom. di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sutura xéewal di ko ñaanal poche yi def dara amiin di ko ñaanal xéwal gu bare bare di ko ñaanal yàlla na ko yàlla musal ci policier yi jàpp gi ñuy jàppaade pour takk masque <laughs> waaw moom masque yi da cee sonn nag masque yi sonn naa ci trop tey dañuy ci oto bi xoola barki dem dañoo ne ci oto bi ma jékki-jékki rek taal sama téléphone fàtte naa dafa takk masque <laughs> di vidéo rek mu jékki-jékki rek na ma nii foofu mënul sax wax <laughs> ma ne ko fi mu ne ñëpp a sonn donc di nuyu moo waali sama frère la moom it ndeysaan jàpp ci liggéey bi ah di nuyu sëñ Abdou ñu naan ko Sourié waaw donc ñu ngi koy nuyu di nuyu sama gars yi ñi nga xam ne tamit teewuñu mhm. sama rakk yi ñoom Mor Faye mhm. ah ñoom Diaz mhm. ñoom Momo ah di nuyu bëy di xam nga bàyyiwuma kenn sama gars yi ñoom ñëpp ñoom Pazal Issa Ndiaga Sarr sunu sunu sunu waa ji nga xam ne moo yor oto yi di ko jox. <laughs> ah sunu copain. dèjà Baye Jaga sama rakk. waroon na ñëw. Mhm. mais nag dafa demoon Kaolack. Mhm. moom dañ ne bàyyi nañ oto yi rek. biñ koy wax mi ngi ko fekk ca garage <laughs> waaw dañoo kii rek. bëri na ci na ci ay morom de. waaw gis nga donc di ko nuyu di nuyu waa Kaolack ak euh, rawatina waa Pikine. merci beaucoup kontaan ci ñëpp. mbokku téléspectateurs yi ki ngeen gis naka moom mooy Pagaye Mbaye moom la ñu daraloon tey seen émission bii di ndaanaan réew mi ni lay demee chaque samedi dañu fiy daral benn ndaanaan waxtaan ak moom ci art waxtaan ak moom ci musique waaye itam mu bégal leen ci nga xamante ni moom moo di kàddoom bégal leen ci orchestre bi nga xamante ni moom la àndal waaye tam bégal leen ci xeetu baax baax yi nga xamante ne suñu borom defal na ko ñu koy sargal di ko bégee lu baree bare moom Pagaye Mbaye di kontaan a baax ci orchestre bi nga xamante ni tey moom la fi àndal waaye itam di bég ci ménager am bi nga xamante ni moom la muy boogaa di kontaan ci moom lu baree bare sama grand aussi ma koy bégee di ko sargal lu baree bare moom sama grand la sama waaye la ku baax la moom <laughs> euh, Kia ñëpp maa ngi leen di nuyu ak waa Jëre famille waa Jëre famille waaw maa leen di nuyu bu baax a baax a baax <laughs> dèjà ayca may ma gërëm bu baax a baax Souleymane Touba Xayra Textile moom moo génn fii ci tissu bi Souleymane waa Touba Xayra Textile nekk ca Pikine euh, marché Zinc boo rombee marché Zinc rek fi ñuy jaayee lali maa ngi koy béggee di ko kontaan lu bari bari waa Touba Xayra Textile seen numéro di 77 271 13 23 77 271 13 23 waa Touba Xayra Textile Souleymane sama waa ji maa ngi lay béggee di la ziar di la kontaane di bégg bu baax a baax ci tissu bi di la wax ni la bégg nañ kontaan nañ bu baax a baax ci jàppale bi ci émission bi di ndaanaan ni réew mi Souleymane Touba Xayra Textile bégg nañu leen kontaane nañu leen bu baax a baax di di di dama fàtte woon nag sama papa boobu <laughs> eh. Zoura Mbaye Madiaga. Eh, kooku sama papaay bopp la. sama papa la maa ngi koy sama lépp la. du ma dugg ci loo xam ne yëgu ko. borom avion bi donc maa ngi <laughs> ji donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax. moom sama père moom sama ah. nijaay Saare bi toj nañ dëkk bi. waaw gis nga di nuyu nag waa Ngéwël sunu waa kër sama bàjjen mami ñoom Basou yaay ah, Saare léegi nag dina mu neex rek. <laughs> jaaxal leen waaye bu ngeen ko deful ni ko yàlla def mu jaaxal leen